day wax nag ci bunt bi bu amee ay bori julli noo koy fayee ak lu ci aju ak waxtu yi nga xam ne dañoo araamal ku ca naafila ak waxtu yi ñu sib ku ca naafila saa yu dee julli nag naafila ci waxtu wuñ ko araamale moom day war ci moom mu dagg ko ndax kenn du jaamoo yàlla ci lu mu araamal bu dee naafila nag ci waxtu woo xam ne wu ñu sib la daañu sopp mu dagg ko ndax ndegam yàlla taamuwu ko kon bàyyi ga moo gën àggale ga mu ne nag ku amee borub julli war naa taxaw temm ci fay ko bu ko yéexee rek jëm yéexa ga ci boppam lu araam la xanaa lu mënta ñàkk de mooy tax mu sañ yéexee fay borub julli niki xiif mënta ñàkk lekk wala mar mënta ñàkk naan su ko amutit faaw wuti ko ndax àgg na ci loru lool lool wala mu gëmeentu mënta ñàkk nelaw waxtu mel noonu daal nga xam ne àgg na ci ngànt lool lool na fañ ngànt la te su ngànt li jeexee mu daal jëm ci bari julli yi bu ñu nee nag ku bari ay bari julli war na caa farlu bañ xam ne moom mi sàgganu ca nañuy xamee ne sàgganu ca mooy bis bu ne rek mu fay juróomi bis te loolu mooy kenn julli farata bu mu julli rek fay juróom teg ca mel ne bu jullee tisbaar daal di fay juróomi julli maanaam daal julli ci saasa tisbaar takkusaan timis gee suba bu demee ba takkusaan bu jullee takkusaan daal tàmbaliwaat fay tisbaar takkusaan timis gee suba def ko ba saxoo noonu ba def ko juróomi julli yëpp loolu bu ko defee benn bis bu ne rek fay na juróom bis ku def noonu ñu xam ne sàggarut loolu nag ñu waxee ci bu jullee tisbaar fay juróom bu jullee takkusaan fay juróom bu jullee timis fay juróom ba yëpp mat noonu daa gën a yomb a takk rek waaye su mënee fexe ba bisi bi moom dana ci fay juróom bis rek canam ko jàppandee loolu di ci guddi lay def yëpp yëpp it baax na daañu xam ne moom sàgganut yaari julli yoo xam ne dañoo bokkaale waxtu waxoon nañ ne tisbaar ak takkusaan dañoo amuk bokkaale ci waxtu ba leeral nañ ko amee timis ak gee it noonu dañoo am ak bokkaale ci waxtu ba leeraloon nanu nañ amee bokkaale googu yaari julli yu amuk bokkaale ci waxtu nag te kon mooy tisbaar ak takkusaan ci wet ak timis ak gee ci wet li fekk nga xam ne ñoom ñëpp xaj nañ ci waxtu wa su fekkee ne fàttewoo ko nu nga jiital ga jiitu door caa teg ga ca topp ni kii li fekk nga xam ne tisbaar takkusaan xaj nañ seen waxtu su fekkee fàttewoo ko na nga njëkkee tisbaar ba àggal door caa teg takkusaan tax nga tegale leen noonu ka jiitu jiitu ka ca topp topp ca day lu war ba noppi doole ca di ab sart ca wérug julli ga nga xam ne boo ko defut du baax su takkusaan jotee mu wóor la ne julli woo tisbaar fàtte woo defoo dara boo ko teyee njëkk a julli takkusaan takkusaan jooju du baax faaw tisbaar war a jiitu moom takkusaan topp ca ba tey buggee jotee te mu wóor la ne julliwoo timis fàttewoo ko defoo dara faaw da ngay njëkki timis doo caa teg gee waaye boo njëkkee gee gee ga du baax su fekkoon ne nag fàtte moo tax nga julli takkusaan ba àggal door a fàttaliku tisbaar mbaa nga fàtte julli gee ba àggal door a fàttaliku timis moom dana baax dañuy sopp rek boo jiitalee nga jiitu ba noppi nga baamuwaat nag gi nga xam ne moom nga njëkkoon a julli te waroo ko woon a jëkkee baamu ko it mooy day fekk rek nañ ko waxee woon waxtu wa bañ a jeex waaye su waxtu wa jeexee rek doo ca baamoonte waxee lu taa lu dul lii nag charte ak charte la faqat dong su fekkee ne nag du ñu yaari julli yu bokkaale waxtu wala nga xam ne yaari julli ya sax bokkaale ñu waxtu waaye seen waxtu dafa jàll nga leen di fay rek bor mbaa xajatuñu ca waxtu wa yooyu yëpp tegale ga waru gar la ci kaw boo ko bàyyee am bakkaar rek waaye nag du sartu ci wérug julli ga boo jiitalee ga wër ja jiitu du tee julli ga baax mel ne bu timis jotee te julli woo takkusaan takkusaan daa war a jiitu ndax moo jiitu nga doo caa teg timis waaye boo ko teyee ñu ko jul timis doolu jul takkusaan tam da nga am bakkaar rek ñàkk ya tegale waaye ndegam ñoom bokkaaluñu waxtu du tee ki nga jëkk julli muy timis wér na ki nga mujj julli muy takkusaan ba tey wér na bu dee yaay julli bokk waxtu itam ni ki ngay fay tisbaar démb ak takkusaan démb nga njëkki takkusaan nga tey ko itam ndegam ñoom fay bor rek la jëkkee gu jëkk ga mujj ga ca topp waru gar la boo ko bàyyi am bàkkaar rek waaye ñàkk kaa def du tee yaar yëpp wér su amee julli yoo xam ne dañu laa raw ba noppi am goo xam ne yaa ngi toll ci waxtoom dañuy seet ba xam ne yàlla raw bari nañu wala bariwuñu ñeent ak ñett ak ñaar ak genn moom jàpp nañ ne lu néew la juróom benn jëm kaw itam jàpp nañ ne lu bari la juróom nag ci lañu wute ndax dañ koy boole ci lim bu bari bi am dañ koy boole ci lim bu néew bi kon nag soo amee bari julli yoo xam ne yéent rek la mbaa mu yées ko am julli goo xam ne nga toll ci waxtoom kon day war nga jiital yooyu nga xam ne ñoo la raw ba ak si gi nga xam ne yaa ngi toll ci waxtoom door koo julli doonte xam nga ne sax boo fi dee julli yéent yooyee bu ak see ji gii fekk moom itam waxtoom jàll mu raw la du tee rek nga war a jiital yooyee jiitu ba ak si ci moom nii warugar la nag soo ko bàyyee am bàkkaar waaye boo ko defu du tee julli ya wér juróomi julli bu la rawee yu bokkut ak ga nga xam ne ca nga toll juróom dañ cee wuute ba xam dañ koy boole ci bari wala dañ koy boole ci ak néew lañ sukkandikoo nag mooy nga boole ko ci la néew mel ne kon moom ñeent ak ñett ak ñaar ak benn ñoo bokk àtte kon bari julli la raw dañ koy tàmbalee juróom benn rek jëm kaw bu fekkee boo dee xool julli nga weesu julli woo leen mat nañ juróom benn jëm kaw am julli goo xam ne yaa ngi toll ci waxtoom bu fekkee ne boo fi nekkee di fay yooyee ba agsi ci moom mii da nga fekk moom mi mu raw la day war nga jiital ko moom mii nga xam ne yaa ngi ci waxtoom julli ko noppi nag door a fay yàlla raw te bari daa bëgg wax ne bu fekkee ne amut julli goo xam daa teew xanaa rek daa am ay bari julli yoo xam ne ànd nga leen te it xam nga ga ci jëkk xam nga ga ci mujj ak nañu tegaloo koy dutee rek lay waru gar mooy ndegam xam nga bari julli yi nañu tegaloo nga jiital nga jiitu teg ca ga ca topp ba mujj ga ci mujj loolu waru gar la soo ko deful da nga am bakkaar waaye nag ñàkk gaa def lu tee julli ya wér ci misaal mel ne wóor na ko ne dibéer jéem weesu ame woon na ca borub timis ak gee ak suba ak tisbaar ak takkusaan nga xam ne kon wóor na ko ne takkusaani gaawu moom julli woon na ko la ca topp nag tàmbalee timis dibéeru moom ko ba ca takkusaan ga moom la amee ci bor kon day war mu fay bor yooyu ba noppi njëkki timis teg ca gee teg ci suba teg ca tisbaar mujje takkusaan ndax xam na yu ko raw muy yu ràññiku xam na bis ba su leen tëgalewoon noonu itam nag ni ñu ko waxee rek du tee julli ga wér waaye mu am bàkkaar ci ñàkk gaa tegale bu fekkee ne nag ay julli da ko raw juróomi julli mbaalu ko ëpp waaye nag xamul gan moo ci jëkk xamatul seen bis xamatul gan moo ci jëkk waaye lim bi moom xam na ko kon dañuy sopp mu tàmbalee ci tisbaar fay rekk nag mu wóor ko ne lim ba mat na su ko wóoree ne it am na ay bori julli waaye xamut nu mu toll day fay di fay di fay ba wóor ko ne rek lim ba mu leboon tolluwut nii mu door a bàyyi su ko wóoree ne julli juróom moom am na ci goo xam ne julliwu ko waaye nag xamut gan la ca kon dañ koy wax ne ko da ngay julli julli juróom yépp yépp ñu sopp nag nga tàmbalee tisbaar ba àgg ca julli suba ga su boobaa moom ndegam genn julli moo yore woon ci julli farata yi te julli nga juróom yépp faaw rek googa moom dugg na day wax nag waxtu yi nga xam ne araam na naafila ca mu njëkk caa tudd su waxtu waxatee te jullee goo julli gu mën di doon su fekkee waxtu mi ngi bëgg a jeex te yow jullee goo nga xam ne boo fi nekkee naafila rek doo ci am sax ab rakka kon day araam nga naafila da ngay daal di gaaw jublu ca julli googee am ca rakk balaa waxtu waa raw ba tey it ku amee borub julli moo xam genn la moo xam ëpp na genn du sañ a naafilaati li fekk muy fay bor yooyu ku amee borub julli daal araam na ci moom muy naafila lu mu nar a naafila rek na ko fayee bor ya ba mu des nag julli yi nga xam ne duñu naafila kese julli sunna yi muy koriteeg tëbëskeeg julli muuru jant ak ñaar rakkay fajar nga xam ne rax yi ba ture agul ci sunna yooyu moom lu mu bari bari ay bor daañu ko may mu di ko def jullit muuru weer dañ caa wute ba xam lu ñu sopp rek la mbaa sunna la waaye mën nga ko boole ci nga xam ne bu amee ay bor yu jullit di ko sañ a def rawante na safaag wetar wetar moom benn ràkk boobu bu dee ci yoonu Malik mboolem julli sunna yi moo ci gën a dëgër tey dañuy bëgg lu néew néew ñaari rakk jiitu ko ñu koy tuddee ak chafu safa kon lu am amee ay bor nay julli rek safa wetar bañ leen a bàyyi waaye nag julli yu bokk te yooyu rek bu xësee amee ay bor du leen sañ a julleeti ci mboolem xeeti naafile yi ba ci naafile weeru koor bu xësi amee bori julli du ko sañ a def kon nag koo xam ne dañoo àgg ci weeru koor balaa dugg ci xeeti naafile weeru koor yi day seet ba xam ba mu kàll feeg léegi amee na fi benn borub julli bu mu xam mbaa bu muy nattab leem déet su jàppee ni am na waxtu woo xam ne daawul julli wala am na julli woo xam ne na mu ko daan defe moom xam ne ni baaxut kon na jàpp ne amee na ay bori julli suñu àggee ci weeru koor wi du sañ a naafila day fay rekk bor yooyee bu fekkee ne wóor na ko ne ay julli raw na ko te xamul nu mu toll day fay di fay di fay ba wóor ko ne lam le boon tolluwut noonu daañu sopp nag bu dee tàmbali mu tàmbalee tisbaar niñ ko waxe woon ci gannaaw bu dee julli jumaa bu ilimaan xasee toog ci minbar dañuy sib ku naafila maanaam ku fasus ak naafila bu xasee tàmbali xutba bu dee ci yoonu Malik tàmbali fag naafila day araam ndax ñoom dañuy jàpp ne déglu xutba bi waru gar la kon du ko tey di tàmbali ak naafila su fekkee daa fekkoon muy naafila nag moom day gaaw rek àggale ko te nee nañu julli gu mel noonu bu taay ji jeexee taamuwuñ ca ñaan yoo bëgg rek mu gaawal julli ga daal di gaaw déglu xutba ba nga xam ne bu taayaa sax du ca boole ñaan dooru sëlmal day taay rek daal di sëlmal loolu benn la ci nga xam ne boo taayaa ba sëlmal des ca duñu sopp nga ñaan ngay taay rek yem ca ñeenti béréb la bu ñaareel ba mooy boo dee sujjóot ñaari sujjóot yi jamooj yooyu taay ja nga xam ne moom ngay taaye gannaaw boo sujjóotee ñaari sujjóoti jamooj yi sit nañ nga ñaan ja boo àndee ku lay jiite nga taaye ba sa taaye jeex rek mu daal di wax asalaamaaleykum nga xam ne jotu laa ñaan daañu sib ngay ñaan ba noppi door di sëlmal dañoo bëgg rek dagam sëlmal na nga daal di sëlmal bañ a ñaan di ko ñeenteel nag mooy bu ñuy taxawal julli farata fekk nga nekkoon ci julli nga jàpp ni mën ngaa gaaw àggale ko tarak bu jëkk ba du la raw kon na ngay gaaw àggale ko te rakk bu jëkk ba du la raw boo ko dee àggale nag bu àggee ci taay ba taay ci jeex dañoo bëgg nga daal di wax asalaamaaleykum te bañ a ñaan foofu doonte sax julli farata nga doon julli mel ne nga nekk jàkka ji di julli tisbaar ñuy taxawalal ilimaan takkusaan mu wóor la ne mën ngaa gaaw àggale tisbaar ji te rakkaam bu njëkk du la raw ko it boo àggee ca taaya ji ba taaya ji jeex bul ñaan na nga daal sëlmal rek dugg ca takkusaan ja doonte xam nga ne sax mën nga fee ñaan te du tax rakkaam bu njëkk raw la te tey ñu sib rek nga ñaan foofu bokk na ci waxtu yi araama naafila bu jant bi tàmbalee di fenk te lépp génnagut la dale fam tàmbalee fenk ba lépp génn dañoo araamal ku fi naafila nga xam ne boo fi tàmbalee naafila day war nga dagg ko ba tey bu jant bi tàmbalee so di dugg te lépp duggagut ba ba lépp gi dugg day araam naafila daañu leeral léegi la jiitu fenku jant ak la topp ci fenkuk jant ak la jiitu soxuk jant daañu leeral àtte ba waaye li ñu wax ni moom mooy ba jant ba tàmbalee fenk te lépp génnagut ak ba jant ba tàmbalee so te lépp duggagut yooyu yaar moom naafila dañ ko ci araamal day wax waxtu nga xam ne sib nañ ca naafila nga xam ne sib nañu nga tey ko tàmbali ca ak naafila soo ko tàmbalee itam ñu sopp nga dagg ko bi mu ci njëkk a wax mooy gannaaw boo jullee soo ba noppi la ca tàmbalee ba jant bi tàmbalee fenk diggante boobu dañuy sib ku ca naafila bu jant bi tàmbalee fenk te lépp génn gut nañ ko xewoon naafila day araam bu jant bi fenkee bu lépp génn nag ñu delluwaat sib naafila booba jant bi yëkkati lu tolloog fukki meetar ak ñaar ci sa xoolu bët mën ngaa njëkk wax rek sax gannaaw bu fajar fenkee digganteem ak julli suba dañuy sib ku fa julli génn naafila lu may ñaar rakkay fajar ñaar rakkay fajar yooyu daal gannaaw bu la wóoree ne fajar fenk na moom rek ngay sañee julli boo ko jullee sa kër door a ñëw ci jàkka ji te jàkka ji taxawaluñu da ngay toog rek xaar ba ñu taxawal waaye maanaam doo julli ñaar rakk di ko nuyoo jàkka ji doo baamuwaat fajar bu fekkee julli woon fajar ci sa kër nag da nga ñëw ci jàkka ji taxawalaguñu kon ngay julli ñaar rakkay fajar rek yem ca waaye bul def nuyoo ba noppi julli ñaar rakkay fajar boole ca lu may nag safa wotar moom dañ leen a fonk fonk ba nga xamee ne su fajar fenkee te defoo leen it ñu sopp nga gaaw dal leen def bala nga julli suba su fekkee amoon nga dog boo xam ne da nga daan yeewu di ko julli guddi gu nekk bi yoon nag nga biddanti ba mu raw la nga xam ne kon fajar fenk na te defoo ko daañu la may bu fekkee mën nga koo gaaw dal di koy def balaa muxtaar bu subaa jeex nga dal di gaaw def ko bu fekkee da ngaa nekk booba nag ci jàkk moom lay tax nga mën koo def mooy ñu bañ a taxawal jullit suba ga buñ taxawalee julli farata ga moom doo ko mën a defati faaw nga daal di bàyyi dog boobee nga daa julli te ànd ca julli suba ga ndax bu ñu xësee taxawal farata ca jàkka ja kenn du fa sañ a tàmbali geneen julli gu bokkut ak googa gannaaw bu ñu sëlmalee takkusaan it dafa dale ba jant bi tàmbalee so dañuy sib ku fa naafila bu jant bi tàmbalee so moom naafila araam lay doon niñ ko weesu woon léegi booba lépp di dugg bu lépp duggee nag bu dee ci yoonu maalit sib ga dellu si ba ba ñuy sëlmal timis bi sëlmalee timis nag naafila daal dagan ba fajar fenk nu fàttalee foofu ne julleeg néew dañ ko yemaleeg naafila ci kaw waxtu ñu araamal naafila araamal ca julleeg néew waxtu ñu sib naafila sib ca julleeg néew teewul nag gannaaw boo jullee takkusaan ba muxtaarum takkusaan di jeex ak gannaaw boo jullee suba ba muxtaarum suba di jeex daañu maye ku fa jullee ak néew daañu maye itam ku jàng alxuraan ba àgg ci bérébu sujjóot mën a def sujjóotu alxuraan ba te nag jëmmi jullit naafila kese moom dañ ko fay sib nañ ko waxe woon léegi nga xam ne kon kuy waajal ab néewam te joxe waxtu gannaaw takkusaan day farlu ci bu ñu sëlmal takkusaan rek mu daldi noppi ñu mën koo taxawu jullee ko fi saasay saasa dañuy bañ mu yeexamtaloo yeexamtalu ba nga xam ne waxtu sib wa jot na mu war nopp ca waajtaay wa fekk mbooloo mi teew nga xam ne li ci ëpp daañu koy jullee ci waxtu woo xam ne siboon nañ ku ci jullee ëpp néew bokk na ci waxtuñ siboon naa fi la itam gannaaw buñ sëlmalee julli jumaa gi waaye nag sib gi mi ngi yem rek ci ilimaan ja génnagut mbooloo mi génnaguñu su ilimaan xasee génn mbooloo mi génn rek mbaa boog génn ñu waaye la leen tee génn dafa am sabab rek kon ku bëgg a naafila mën naa naafila sibatuñ ko li alquran wax ni fa ida qudiyati salaatu fantashiru fil ard jubloo ca ne te ngeen daal di war a génn tasaaroo daa fekk rek ca bu jëkk buñ masaa di julli julli jumaa julli gi day jiitu xutba bi mujj am boo xam ne yonante bi dafa julli ba àggal di xutba ñu dégg nag ñu tëgg ndënd yi wane ne njëgg ma maanaam ñuy jaay marchandise ñëw nañu tax mbooloo mi daldi daw dem ca tëgg ma ak njaay ma bàyyi fi yonante bi rek mu taxaw noonu di xutba loolu rek la doon aaye di wane ne da ngeen di bàyyi ba xutba bi jeex ngeen door a génn gannaaw ba nag la ñuy jiital xutba bi di mujje julli gi waaye booba julli gi moo daa jiitu xutba bi nu bañ a fàtte itam ne fiq moom dafa bari ay wute lool niñ ko waxee rek bu dee ci gis ci suba malik moom bu ilimaan dee xutba day araam naafila xeeti wuute yu bari yooyu nag moo tax da ngay xam la nga war a def rek sukkandikoo li nga xam ne moo wër ci mbirum malik mi nga xam ne moom la sëriñ bi jàppalu bu keneen defee leneen lu bokkut loola nag nga bañ koo gaaw a diingat bañ caa gaaw a wax dara boo ko jeexee jeex nag muy loo xam ne dëppoo te sunna ci genn anam nag nga door ko caa laabiire